doon wax dafa mel ni tey wax 2011 gis nañ ko fii ah. ah doon wax voilà loolu moom. Ah, même même ah. ci mhm. bu laal suñu constitution et doon toog ah. Walf TV. Euh, c' est je je tenais à parce que Walf TV. dañu retirer seen licence. Walf TV moo leen doon permettre ñoom. Hmm. ñu mëne seen ay combat parce que ci plateau Walf TV lañ doon toog di dénoncer hmm. li nga xam ne moom la waat Wade doon def hmm. tey. Walf TV peut-être wax na loo xam ne arrangé wu leen wala mi ngi génnee loo xam ne arrangé wu leen tey ñu dem ba retiré mm. pour la première fois de l'histoire du Sénégal mm. ñu gis un président de la République tëj mm. télévision Absolument. une chose très grave c'est très grave c'est très li xaw mais sa question bi nga njëkk posé la ma ci am lu jàngat bu ma ciy def xam nga Macky Sall bi mu ñëwee après def nañu wooy euh, c'est la patrie avant le parti loolu lay doxalee bon doxal la Mhm. sénégalais yi jox ko deux mandats mu xaar ba bu mu war a dem mu wane ne moom ndekete li mu mës a gëm mooy le parti avant la <laughs> patrie xam nga tey parti bi mu ngi delloo ko muy seen parti PDS euh, libéral bi lañ si waat ñoom mhm. parce que fi mu toll nii li fi xaw li ñu doon xeex dafa mel ñoom seen biir ah mhm. donc voilà mooy wane daal moom en douze ans franchement il a tout un loolu rek laay mooy sama jàngat bi ma ci am. mais mais man dama am benn affaire mooy les les démissions yi ku ma doon wax léegi muy Eva Michael Seck que je pense que moom bon ma exactement est-ce que lan moo tax mu mu démissionné mais euh, Abdou Latif Coulibaly également gis nañ ko on a écouté également hier kii nga xam ne mooy Zahra Iyane am Youssou Ndour également bokkoon ci euh, euh, majorité présidentielle bi Elimane gars yi bu ñuy wax démocratie aussi tey on a vu beaucoup de transhumants. ci mel na maître Aïssata Tall Sall tey mm. ministre de la justice démocratie bi ñi nga xam ne tey ñoo doon xeex démb mm. retrouver wu de l'autre côté mm. tey jii nii seen seen position aussi askan bi est-ce que waruñu ko xoolaat parce que man balaa nga may wax d'abord nii la réew war a doxee démocratie nii la war a demee alors que am na foo féetee woon démb tey nga génn di waxee nii daf may man man mi euh, citoyen bi duma xam fan laay taxawee est-ce que tey ñi nga xam ne tey ñoo démissionné di wax te démb ñu nekkoon ak Macky sal doon ànd ak Macky sal muy neex nguur gi di dem te gisoon nañ ne lii fii la jëm donc est-ce que ñooñu aussi amuñu responsabilité ci li nga xam ne tey moo nekk di xew ci réew mi non du ma juger ñoom acte individuel yi ñuy jël. Hmm. Euh, il faut que ñoom ñu expliquer ñu xam mais li ma bëgg a wax rek ci sa question bi li am solo mooy jàngat bu ñu war a am ci suñu démocratie boo xam ne ne dañ ko tëgg autour des enjeux de pouvoir. Hmm. ak aussi euh, jox pouvoir yi yenn acteurs politiques yi surtout les partis politiques. effectivement pour ñu mën a dem di yore pouvoir bi. Hmm. booy seet loolu daf ñuy permettre tout ça ñu dem ñu ñëwaat si réflexion yoo xam ne ñun moom lañ mës a def. Hmm. gis nga yàggul dara ñun au niveau de mesure on a sorti 64 mesures yoo xam ne hmm. jàpp nañ ne buñ ko def buñ ko appliqué. Hmm. dinañ mën a am démocratie bu méngoog askanu Sénégal. lu ñu bëgg. ak nu ñu mën a doxale te surtout dinañ génn ci li nga xam ne mooy suñu problème bu gën a sori. mooy système politique bi nu ñu ko organiser cette démocratie électoraliste avec le pouvoir qui, euh, qui, qui, qui se passe entre les mêmes acteurs oui. hein, qui mhm. tournent autour des cadres des espaces yoo xam ne mooy parti politique yi mhm. te après bu ko jotee dañuy fàtte l'essentiel cest à du ñu satisfaire l'objectif la finalité des politiques publiques boo xam ne ni mhm. mooy le bien-être des populations tey la Sénégalais yi gën a sonn seen micro trottoir bi wayandoo ko donc boo seetee ñun lu ñuy proposer foofu moo tax il faut Sénégalais ñu nangu dem ci réflexion yu xóot a xóot a mm-hmm. yenn réforme yoo xam ne ñun globalement dañ loolu la ñuy woowee refondation mm-hmm. il faut ñu dindi clientélisme politique bi. hyper mhm. présidentialisme gis nga fu mu ñu yóbbu. effectivement Macky Sall mu def lu ko neex. Mhm. su ko dindee mooy wane ni foog ñu xoolaat même les modes de représentation des sénégalais. Mhm. pour man waratul jaar ci ay élections yoo xam ne ay listes yoo xam ne ne benn moo koy def pour ñu am député yi loolu moo tax li am assemblée. tey am fa. mais nañu xool sénégalais yi naka la ñuy tànnee seen biir ñi gën su ñun ñu daal ñuy représenté. ñu wàññi tamit lépp loo xam ne dafa nekk avantage. pécuniaire ci politique parce que mhm. ñenn ñi certains mhm. affidés ñoo xam ne lu ñu leen wax ñu def ko c'est parce que bu ñu ñàkkee seen poste politique bi suba duñu am liggéey moo tax mhm. donc il faut ñu liggéey si yooyu génne ñun euh, dañu am. incha allah waxtaan bi donc mën nañ ne intérêt personnel mu indi. véritablement ce problème. de l' bi ñu nommé ministre de la communication muy def lu ko neex c' agent de judiciaire de l' xam nga tamit bu ñuy nommé yenn postes yi war nañu xool responsabilité ñi nga xam ne ñoo ko war a yor. aujourd'hui la communication quand même waruñu jékki-jékki rek joxe ko ni des postes politiques comme ça je pense que inter loolu aussi bokk na ci conséquences yi ñuy dund tey. Mm. ba Walf lu moo dal Walf. c'est dommage et c'est mm-hmm. regrettable. Mm-hmm. Voilà. Le, le mal est